Ah, waaw maa ngi nuyu ñëpp na ni dëkk bi moom ñëpp a tiit moom képp ku am jaboot sa xel dalatul boo tëddee doo nelaw tant sa njaboot tëddul yow doo tëdd nelaw ñëpp a jommi ñëpp a waaru ñëpp a tiit kenn xamul lii lan la. rey chaque jour rey chaque jour rey saa yoo yewwoo rey nañ diwu rey nañ diwu te rey yu ñaaw war nañ xool nag lan la jot na gouvernement bi xool lan la lii xew sa dëkk bi lan la président Macky Sall jot na nga xool li xew sa dëkk bi li jënti lan la ñi fi dugg ñan la ñiy def lii lan ñan la ndax ñun jommi nañ tiit nañ ñun ñiy génn sax amuñu sécurité ñun yaay yi génn amuñu sécurité waxuma laa suñuy doom jot na nag ñu xool dëkk bi li fi ne lan la gouvernement bi na taxaw ministre yi nañu taxaw ku ne la ñu la dénk na nga xool lan la nga taxaw lijjanti lii ndax doy na waar. li ci samay xalaat daal dama cee xalaat maanaam comme jigéen ñi jamono bi ni mu naqaree ak jigéen ñi ni ñu sonnee ak maanaam fajar gi ñuy xëy di dem di daani seen doole di wuti li ñu am ndax seen njaboot gi ak seen askan gi. mais raykatu nit ñi tamit li nit ñi di dem di xosla ji pour seen njaboot gi maanaam ñoom tamit dama koo gisee ne maanaam loolu lañ bëgg nangu mais ñoom tamit jamono gi métti na métti na goo xam ne bu ñu leen dimbali woon ñu am liggéey peut-être loolu yëpp dina fi mën a ñàkk loolu laa xalaat moo ciy sama xalaat mais ñoom dañoo xam ne jigéen ñi dañuy xëy di xos mais jigéen ñu bari léegi ñu ciy muus bu ñuy xëy fajar gi dañuy gàddu seen i saak mais seen gàddu saak bi lu si ëpp duñ ci def téléphone duñ ci def xaalis à part seen paas parce que dañoo xam ne jamono bi dafa métti mais agresseurs yi tamit ñoom dañuy yaakaar ne comme yaa ngi gàddu saak yaa ngi yore xaalis bu dul jeex mais jigéen ñi defatuñ ci xaalis bu bëree noonu seen paas dong lañ ciy def ak li ñuy summeekoo loolu lañ ciy def mais rey-rey moom bu ñu mënoon a dimbali mu jóge fi dina baax lool ñu jàppale leen ñoom tam ñu am liggéey ndax ñu bàyyi rey rey gu métti. lii moom affaire bi moom parce que léegi ñu dem nañ ba si yàgg dañoo tiit sax suñ dëkk bu ñu nekk ni actuellement nii euh, di wax ne rey yi bëri na surtout ñun surtout ñun ñuy nekk si di liggéey si biir dëkk bi di xëyee ko wàcc xam nga yow mën naa wax ne sax yow boo nekkee fii sax yow say parents bu ñu nekk si village sax surtout nga ne village waa nekk si dëkk bi di liggéey sax say parents bu ñu déggee loolu sax surtout lu ñu wax rek chaque jour lan géej waaye fu nekk Kaolack Touba rey sécurité bi dem na yow ba yow sa bopp sax da ngay tiit yow boo nekkee sa biir kër di liggéey pour am dara ñu fekk la fa jël li nga am booy dox si mbedd mi li nga yor ñu handicap nangu nangu ko di wax ne wax dëgg lii moom dañ see war a dañ ñoo yi ñooñu si war a jàppale ñoo si war a jàppale bu baax a baax a baax bi moom moo si war a taxaw temm lu mu ko jargaan lu mu lu mu moom dañ leen war a jël gaan denc leen foo xam ne gaan képp koo xam ne gaan xalaat nga lu ñu ne di war a denc ëllëg rek yow boobaa dootoo xalaat def lii parce que doomu aadama di liggéey tamit liggéey dafa métti di xëy daan doole di liggéey surtout rawatina kaa bu ne am Kaolack bu nekk Touba xam nga saar yooyu yëpp boo koy déggaan yow sa xol day métti après yow boo nekkee liggéeykat yow sa xol parce que sa moromu liggéeykat rek bu ñu ko jëlee rek agressé ko rek nangu si moom benn portable rek soo que yow da ngay xalaat ne kooku noonu yow li ngay daj yow moom lay daj chaque jour ak dëkk bi dafa métti bu duñ nii dëkk bi lépp daa métti chaque jour ngay nekk di rayante parce que tey dëkk bi da dem ba benn mois doo ñeme doo ñeme benn instant yi moo tax booy bu ñëwee di kër ga di génn naan dañuy dem si kii ñu naan non dëkk bi am na liggéey fekk non non non yow boo dëkk bi amutul sécurité gaan dootoo bëgg a parce que da ngay bëgg a génn dëkk bi te loolu day tax gaan ba ñuy war a di ñëw fii nii gaan sax ay terroriste gaan dañuy dem ba si yàlla dañuy ragal gaan euh, moom noom ñun daal ñu ngi ñu ngi ñaan daal suñu xam ne gaan ñoom ñooy suñu njiit te ñoo xam ne ñooñu ñu teg leen fi daal nañu jàppale jéem ñuy tegal ñoo xam ne fi képp koo xam ne nako def nga nako su noonu wala koo xam ne yaa ngi doxee nañ la jàpp ñu denc la ba nga xam ne yow dootoo bokk si terrain yow nañ la denc xam ne yow dootoo bokk si terrain yow boo liggéey yow da ngay xalaat yoon nan ngay génne gaan dem lijjanti sa soxla waaye dootoo xalaati gaan dem waaye bu fekkee da nga def benn dégât ñu jàpp la tëj la ñaari semaine nga génn ñëw ànd ak nit ñi boo ñëwee da ngay da ngay defaat li ngay defar rek mhm. loolu dong la ni wallaay la asim voilà Fatmata yow ban jàngat euh, ak ban gis-gis nga am ci li nga xam ni moo am fan yi ci dëkk bi ak ci biir réew a ah, pour man mal éducation la le commencé en plus bi y a pas beaucoup de sécurité juste bu ñu xoolee bu ñun bu ñu soxlaawee euh, sécurité maanaam police wala leneen mën nañ ko bañ a am par rapport ñoom pour ñoom seen sécurité rek juste si président bi dañ ko war a euh, xool carrément moom moo war moom moo jara moom moo jara def yenn sécurité par rapport à la population alors que ñun ñoo tax sa président bi toog fii donc ñun lañ war a gën a bàyyi xel en plus yaraat dëkk bi manque d'éducation daal bëri na fi trop man loolu laa si gis. loolu li nga xam ni mooy euh, suñu police nationale ak gendarmerie bi euh, lëkkaloo nañu waaw di liggéey liggéey bu am solo. mais tamit ñi nga xam ni ñoo yeewoo ci yenn gox euh, quartier yi tamit ñu ci mel ni yenn jeunes yi tamit ñu ngi mobiliser wu tamit ñoom it di aar li nga xam ne mooy seen gox wala seen koñ euh, loolu ban jàngat nga ciy def. ah nu ñuy def bu police deful liggéeyam gouvernement deful liggéeyam ku ne aar sa gox ndax sauver sa bakkan bi gouvernement deful liggéey police deful liggéey gendarmerie xaw ma ñu ngi def xaw ma defuñu waa nan la ñuy def ku ne na nga aar sa gox am jàmm. loolu da laa gis jamono yi jamono jamono yi moom police ak gendarmerie lëkkaloo nañu ñu ngi def mais xañ na loolu dafa doyul dafa doyul moom waaw doyul comme doyul nag ku ne sagox ba nga dëkk na nga jéem ngeen dajaloo jéem a sàmm seen boppa aar seen boppa aar seen njaboot ci ci aar googu tamit euh, ban xalaat nga leen di jox ñu bañ fajal seen bopp ndaxte yoon dafa am ci waaw nag bu kenn fajal sa bopp ndax yoon am na lu mu metti metti moom bu kenn fajal sa boppa lu mu metti metti bu kenn fajal sa bopp nañu bàyyi yoon def liggéeyam te ñu aar suñu bopp sàmm suñu bopp téye suñu njaboot dañ téye suñu njaboot du dëgg ku ne na nga sàmm sa njaboot aar sa njaboot bàyyi yoon def liggéeyam ku jàpp nit na nga xaar ba police ñëw mu fajal boppam waaye yow boo fajee ñu tëj la si kaso bi soxlawul ngay faj da ngay yàq sa àdduna rek. ñàkkum xëy moo waral lool parce que man mii di wax ak yow jigéen 5 heures du matin laay jóg xëy. te su ma jógee 5 di du matin xëy dem fabeere ji damay gaawantu ñëw balaa 7 heures pour sang sama doomi ñu dem jàngi su may dem liggéey sama saak dama koy yóbbaale mais yére bi may sol dong laa ciy dugal jamono gi métti na métti goo xam ne du ma yóbbu téléphone du ma yóbbu xaalis à part paas bi may paas su may lool loolu dong laa ciy dugal te su may génn damay gëstu ba xam ne gisuma kenn te jamono gi métti na métti goo xam ne tant que noddaguñu du ma génn parce que damay xaar ba ñu nodd ma xam ne maa ngi daje paay ñu ngi dem ci jàq ji ma mën a génn loolu moo ci sama xalaat mais ñoom daal defe woon naa bu ñu leen jàppalewee loolu dina fi mën a deñ ci loolu yow euh, est-ce que ñuy def ñaawteef yooyu di rey rey yomb yooyu peine de mort bi wala ñàkk koo def ban ban jàngat nga ci def. waaw man de man man de dama ne man comme peine de mort soit dëgg la parce que sénégalais moom xolu yërmande bi dafa bëri waaye man sama xalaatu boobu man damay toog sa di wax man a gars yi fii gouvernement bi mën naa dem comme ay secteurs yi nga xam ne yoo xam ne si diggi forêt bi. képp koo xam ne gars da nga rey wala nga agressé dem ko ñu dem denc la fa yow foofu dañ la ko defee ni bu xalaat waaye bu fekkee da nga kii ñu yóbbala 100000 mu fees tey ñu xëy xëy garagé la génn la nga dem da ngay reyaat encore rek loolu dong la moo di génn chaque jour 30 personnes génn wala 5 personnes day fees waaye bu ñu leen yëbbee si digg àll bi mu mel ne ay Tambacounda gaan dem def fa benn kasu boo xam ne gaan si digg àll bi forêt bi xam ne def nga dégâts bu ñaaw ñu yóbbu la foofu denc la ko wallaay laa boo xalaatee ne man su ma defee nangam danaa dem foofu noonu doo def li ngay def loolu donc gouvernement bi daal ñoo ñu si mën a jàppale même bu fekkee penn mool xam naa du mënta am tamit ñu jéem lay teg daan daan boo xam ne gaan yow bu soob yàlla boo bëggoon a def benn affaire sax di nga ko xalaat daal boo éduqué wul sa doom moom mooy waral mu nekk bandi doxal si dëkk bi il faut yar sa doom Euh, mu xam réellement nga wan ko ay yenn valeur u yu ñu war a am nga def ko ci sa doom loolu dina tax ba doo xamante ne du def yenn yi. ci loolu yow tey nii nii euh, su fekkee ni da nga am benn euh, message boo xam da nga koy lancer à l'endroit de ses de tes camarades wala de des jeunes filles d'une manière générale ñu jël yan matukaay surtout ñuy déplacé wu di ñëw di xëy di jàng si wala di liggéey si. xam nga tamit même boo jëlee matuwaay tamit. te nga fekk fi benn leneen loo xamante ne benn gàllankoor munoo si dara parce que ñu man mi sama jëm boobu def matuwaay dama def matuwaay yu mat sëkk di ñëw jàng si démb xam barki dem fekk fi grève ba ñu maa sànni xeer te pourtant dama jël sama oto ñëw ba fii mais oto bi mënul jëm kon ñu ñi ñuy wàcc dox kon matukaay bu ñu war a jël carrément amu fi nit ñi daal pour man euh, dañoo war a localiser wu xool dëggantaan si jàng bi ñu matal ko ba mat sëkk wan ñi ñi jox ku nekk nit ki li mu war li mu li mu war a mën a am si àdduna nga jox ko tamit nguur bi tamit nañ xool seen doxalin waaye tamit mën daal loolu laa gis. mais emploi pour les. voilà emploi pour les jeunes dafay wàññi euh, banditisme yi ak violence si àdduna bi parce que tamit boo amulee looy lekk amoo loo naan nga gis ne lii su ma jaayee drogue di facilement mu am ay milliards dama koy dem defe ji boo amulee ay valeur tamit c'est ça loolu la ma loolu laa gisee mais mënoo jël benn matuwaay nga ne man. Euh, damay jël matuwaay jàng si kon dara du ma parce que xamoo looy ak xew ci mbedd bi yow li ñu lay yare yarewuñ la keneen keneen ki yarewuñ ko noonu c'est ça man loolu laa si gis de